asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokku jullit di rawatina sunu mbokku taalibe yi nuy bàyyi xel di ñu seetaan moo xam ci déglu la ak seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di leen nuyoo fii ci kanamu sàng bu tedd bi cheikh Mouhamadul Basir Mbacke Anta Niang xalifab cheikh Ibrahima Fati borom daarul Moxti mu feggoog cheikh Mouhamadul Basir Mbacke Abdoul Khoudous mi yore kàddu njabootuk borom daarul Moxti gépp waaye feggoog Serigne Cheikh su fay bàkkee mi chef de village su Daarul Moxti mbokk yi bu ngeen gisee toogaay bi nag xam ni am na ndigal loo xam ni bàyyi na ci sàgg bu tedd bi di Cheikh Mouhamadoul Bassir Anta Niang fas yéene wàcc ci mbooleem njabootuk Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Moxti ak soppe yi ak wëllëre yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew jëm ci bis bu sell bu màgg bi nga xam ni fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan daan nañu ko màggal euh, gisab Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Thierno Birahim fële ca Ndar ginnaaw bi Serigne bi jógee ca tukki ba bokk bis boobu nag ñu dëgmal ko ay bis yu new dox sunu digg moom nu fa yéene cee tàbbi lan digal la ci sëriñ bi joxe wàcce ko ci taalibe yi jaarale ko ci kàddug cheikh Mouhamadul Basir Mbacke Abdoul Khoudous mi nga xam ni moo yore kàddug njabootug sëriñ bi ak mboolem njabootug borom daarul moxti gépp ñu fas yéene teewlu cheikh Mouhamadul Basir Mbacke moom sëriñ Abdoul Khoudous mu wàcce ndigal loolu bàyyi ko ci sëriñ Basiru Anta Ñang ci noonu bu ñu noppee itam sëriñ Cheikh Assou Faye Mbacke mi nga xam ni mooy chef de village su daaru moxti bi nga xam ni bu ñu nee fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan xel yëpp dem ci daarul moxti te sëriñ bi dénk ko dëkk bi moom itam dana yëkkatee kàddu yoo xam ni dana ko jëmee ci mbokku taalibe yëpp waaye bu ñu noppee itam cheikh Mouhamadul Basir Mbacke Anta Niang xalifab cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti dana yëkkatee kàddu mu doon ak ñaan ci mboolem taalibe yi ak njaboot yëpp kon mbokk yi ñu maase teewlu cheikh Mouhamadul Basir Mbacke moom sëriñ Abdul Khoudous mu wàcce ndigal li nga xam ni moo bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Basir Anta Niang xalifab cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi ci tuuru sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty ñu di ko ñaanal yàlla sunu boroom bu may ko wér ak kattan ba mu mën a taxawee bu baax ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey boroom daaru Darou Mouhty ci kër sëriñ Touba te yàlla may nu it nu ànd koog moom di leen nuyu ci aw turam di yëkkati kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci moom te lépp aju ci bisu borom Darou Mouhty bi nga xam ne. mooy bisam bi nga xam ne seq ko kenn ku dul sëriñ Touba muy nis bu sax baan fukki fan ak juróomi baraxlu gi sëriñ bi nag dafa jëfandikoo li nga xam ne ci sëriñ Mouhamadou Awa Balla ba léegi mooy li fiy dox mooy ku fi toogal borom daaru mooti ku nekk da ngay wax ne bis bii di bisu borom daaru mooti ku fi nekkal sëriñ Touba ndigal lu mu ci joxe rek loola mooy wéy loolee nag moo tax ba nga xamee ne sëriñ Mouhamadou Awa Balla am na ko ci ci ci ci sëriñ Mouhamadul Moustapha euh, am ko ci Cheikh Mouhamadul Fadil loola nag mooy wéy ba ci sëriñ Mountakha yi fi nekk tey yàlla dajale ko ak moom yi muy borom daaru Muxti kee di sëriñ Touba sëriñ Mountakha euh, woolu ma ma ànd ak sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo mag ci njabootu sëriñ Bassirou Anta Niang ba ma demee mu xamal ma ne li may yónnee ci sëriñ bi mooy dama gis ne jamono toll na foo xam ne dajale mbooloo ak ak xumbeen mel na ni du du du du lu war a mën a nekk mm-hmm. ndax yi ci aju dafa bari mm-hmm. ba loolu sax man moo tax ma teg poroxaan ji ci suuf loolu moo tax képp ku ci bokk ku nekk loolu laa lay digal mm-hmm. ndigal li moom mooy maa bëgg sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang mu ànd ak njabootu borom daaru Muxti gépp màggale ko ni su fa sax ji ci xol ak ko sellal dara yëngutu ak i xumbeen war bañ bañ caa am loolu nag jàpp naa ne nañ koy defee mooy Euh, alxuraan ju mat sëkk ju sell xasida sëriñ Tuubaa yi ak lépp loo xam ne lu mën a jariñ aji dawlu la ña fa nekk ci borom daaru muut ak njabootam ak mboolem jullit yi mm-hmm. loolee bi ñu ñëwee nettali sëriñ bi ne lii la doon wootee sëriñ bi dafa xam ne kon euh, am na sax lu ma jël tuuti bi ma sëriñ Muntaxa waxee loolu dama ko ne ah lii de doy na waar ndax mm-hmm. euh, démb ci ajuma ji day démb ci ci ajuma ji ak dibéer la ma woo ma ne ko barki démb ci ajuma ji day la mujj wax ne ndax déggaguun ngeen ci sëñ ba dara ci lu jëm ci màggalug daaru bi man ñu ne ko man ne ko man di kasu rajab laa déggaguun mu wax ak waa kër sëñ Fadlu yi kon nag bu fekkee ne gaaw rek fi jaar dibéer ji ñëw nga wax lii kon mën na mbir mi nekk na fa mu nekkoon ba ñëwee nettali ko sëriñ bi moom sëriñ Basiru mu xamal ñu ne nañ daal di jokkoog ñi nga xam ne ñooy waa kër waa kër borom daaru muxti yëpp tàmbalee ko sëriñ xalit ba ak boobu ba kër yëpp daj eh, noonu it na lañ ko defee fii wax yow daal man naa ne kër sëñ Abdul Jamil mooy bi nga xam ne moo ma dese woon ci sóob bi ma ko waree bi ma ko waree woo par yàlla dogal ñu ñëw ci jataay bi nii waaye bu du ku dul loolu rek mbooleem kër yi kër borom daaru Muxti yëpp fenn foo ci ne baatub sëriñ bi sëriñ Basiru Anta Ñaŋ àgg na fa jot fa ndigalul euh, sëriñ Muntaxa moo di ne màggalu Daaru Muxti gi duñu ko fomm waaye nag dañuy soppi doxin wi ndax loolu mooy yëgle goo xam ne gi mooy Eh, bisu borom daaru Muxti dikk na muy nisfu baan mhm. kenn ku nekk foo nekk nga màggal ko sellal ko jàng alxuraan jàng xasiida te xam ne lii mooy bisu borom daaru Muxti bi nga xam ne mbégte lañ ci wut mbégte nag su yàlla dogalee nga jaare ko ci borom mbégte ndax mhm. sëriñ Basiru eh, dafa am ku ñëw ci sëriñ Touba ci njaareem ne ko sëriñ Basiru mooy nuyoo mhm. mu ne ko tee nga wax ne ki nuy bégal kon nag sëriñ Basiru Anta Ñang bu fekkee ne mooy kii ñuy bégal jëlee ndigal ci sëriñ Touba sëriñ Muntaxa moomee di Euh, meññeetum sëriñ Basiir moomee jàpp naa ne mbégte mu ñuy wut ca euh, dajab sëriñ Tuubaa bi ak borom daaru Muxti yàlla mën nañu ko cee defal loolu lépp nag day fekk ne mbir day tënku ci ndigal mhm. tënku ci ndigal moo nu may lii lu nu am ba léegi te lu nu am ëllëg moo nu koy may mhm. kon sëriñ bi dafa bëgg daal fu nekk te aju ci borom daaru Muxti wala ngay koo xam ne kii daa nga màggal bisu borom daaru ndax borom daaru Muxti bisam bi bari na ñoo xam ne daa nañ ci jàng ay kaamil te bokkuñu sax tariqatu ya bari na ñoo xam ne daanañ ci feeñal seen i yéene te bokkuñu ci tarixatul muridiyya ñooñu ñëpp kenn ku ci ne fa nga nekk na ko sellal te matal ko xaw na wuute ak daaw tuuti ci menn mbir mooy booba dafa am euh, lu ñu tuddee état d'urgence mm-hmm. nga xam ne kenn du génn raison ak raison mm-hmm. loolu am nañu bari xam ne jàppoon nañ ne sax loolu moo tax ba na na mu féexe woon mu féexe ni mm-hmm. waaye tey jii ba tey mën naa féexe noonu ndax murit moom pas-pas rek am solo ci mu ak gëm-gëm ak ndigal loolu moom du caag yéene mooy bunt buñ tëj ak buñ tëji ndax nun li ñuy def lépp ndigalu sëriñ bi dong moo tax ñu di ko def waaye ragal jàngoro wala ragal keneen wala wut bëgg-bëggub keneen taxut ñu di ko def wala ñu di ko daw li sëriñ bi bëgg rek te bëggal nu ko muy lu baax ci noonu loolu rek la ñuy wut kon sëriñ bi dañuy ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi te ànd ak wér te te sëriñ Mountakha mi nga xam ne itam moo fi nekkal sëriñ Touba te liggéey sëriñ Touba bi ak ñooñ sëriñ Touba bi ñor ko ba fu fi dara di yëngatoo fu nekk mu jàppe ko ne boppam boo li mu ni lool laa xool ba tax ma def noonu ca poroxaan kon loolu ko yaakaar naa ne nit ki bu la ne nii laa def te lépp dellu ci yàlla ak sëriñ bi loolu yomb a dégg la mm. yomb naa dégg ndax bu fekkee ne pas-pas rek moo nekk ci yow mm. màggal ak dundal mbégtam sëriñ Tuubaa ak borom daaru muuti la a mm. bis boo boo ci àggee fo foo nekk war nga faa mën a def eh, wut ci ngërëmul sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne mooy xalifa borom daaru muuti mm-hmm. wut ci ngërëmul sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi mooy xalifa sëriñ Tuubaa mm-hmm. lépp nag dellu ci sellal ji nga xam ne nag mooy la war ci diggante Euh, jaam bi ak boromam su ci bëggee dara ca la muy la muy jëf la muy jëf ixlaas moom lu mu génn rek dara du ca baax waaye nag lu mu dugg it mu dal di jëkk kon nag loolu moo tax sëriñ bi bëgg daal ci ne ko sëriñ bi waxee nañ ko doxale woon daaw ba mu ko joxee ndigal ci sëriñ Abbas yàlla na ko yàlla dolli ay xéewal euh, nañ ko nañ ko defee noona lépp loo xam ne lii daal nit a ngi ko ci def na seet na seet ci boppam moom ne ndax lii may def moom dëppoo naag li sëriñ bi bëggeem di rek loolu mooy li am solo Euh, am na góor gu baax gu daan wax naan murit seenu xër ci sëriñ bi dafa àgg ba ci seen jàng yi nga xam ne dañuy jàng te ñu ci bari mokkaluñu sax la ñuy jàng wala xamuñu nu ñuy da yàq ga ñuy yàq nee na bu ko jàppee noonu nee na da koy jàppee ne am na xeer wax xam ne bu ñuy saaga dañuy defe ne boo bu ñu jàkkaarloog yow wax dañuy defe ne Euh, seen wayjur lañ wax waaye bu dóoree nga xam ne yow waxuñu woon seen wayjur yow la ñuy wax moo tax mu ne seeni seenu seenu ñàkk ràññee yenn yi ma mënees na leen ko jéggal ndax pas-pas moo koy lal mm. pas-pas nag lu mu lal rek day baax mm. waaye pas-pas bi nag tey moom mi ngi ci ñu wéer ndigalu sëriñ Bassirou Anta Niang mi di xalifa borom moo Mouhty mm. euh, teg ko ci ndigalul sëriñ Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Touba moo di bisu borom moo Mouhty bi ci nisfu saxbaan bés bu yàlla dogalee weer wi feeñ danañ xamal ban bis lay dëppoo moom waaye su boobaa nañu xam ne nii la ko sëriñ bi bëggee lu ci waay def lu nekk nga xam ne yaa ngi dakk bëgg-bëggu sëriñ bi te di ca wut ngërëmul sëriñ bi ngërëm loolee nag xam ne moo ne jëriñ tey dina ko jëriñ ëllëg lii mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu waroon a yëkkati bala ñu àgg ci sëriñ bi wala ñu àgg ci sëriñ Cheikh Assou Faye xam leen ne mun Mountakha woote woon na yónnee ci sëriñ bi sëriñ bi dégg na ko joxtal na ko mbooleem njabootu borom daaru Mouti gi tàmbale ci sëriñ ba ci kër yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa mag ci kër ga nga nekk lépp yëgal na leen ko walbati ko nag waxaat ko ba ñëpp dégg ko koo xam ne ki yaa ngi ci beneen barab xëy na léegi boo jàkkook sa kër ga nga xam ne fa nga fa nga aju sax dana da nga ci xamee dara waaye nag mu boolewaat lépp nag yëglewaat ko mais ñëpp xam ne fii la nekk nii la ko bëggee mooy na lépp sell na lépp rafet te lépp baax ñu wuti ngërëmul sëriñ Touba ak borom Daaru Muxti waxtaan yi nga xam ne mooy wone eh, liggéey borom Daaru Muxti ak i jikkoom ak i melokaanam ak sëriñ Touba waxtaan yooye moom ñi nga xam ne ñooy ñooy commission bi xam ne ñoo yore wàllu culture ak communication bi dinañ ci taxaw nañ ci daan taxawee def ko ci anam ya nga xam ne dina dëppoo ak ni nga xam ne ni la sëriñ bi bëggee soobu yàlla la ca war a leer lépp dana leer ñu ko war a leeral danañ ko leeral te uh, du ànd ak benn benn benn xumbeen du benn jaxasoo waaye dana ku bëgg a xam ci borom daaru muuti dara wala nga fàttaliku incha allah borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu communication bi ci kër sëriñ bi danañ ci taxaw ba Euh, dana yaatu bu baax ba ñëpp ñëpp déggu ko ca nañ ko daan defee yaakaar naa ne fàttaliku nañu daaw ak daaw jéeg ni nga xam ne euh, sëñ Moustapha Ndiaye mi euh, moom lañ ko tegoon ci loxo mu ànd ak rajo yi nekk ci gox bi yëpp boole ko muy benn noonu itam lañ koy defee ñoom ñu nga xam ne ñor wàllu woowu daal dinañ ko waxtaane bu soobee yàlla waaye nekk da nga da nga xam kan mooy borom daaru moom yàlla may na nu fekk wat ko déwét yu bëree bëri te buñ ko fekkee ñu tal ko ba noo xam ne na la ko nit ki bëgg a defee rek ci ci gis-gisu boppam ci ngir wutte sa ngërëmul sëriñ bi mu mane ko noona mm-hmm. loola kenn ku ci ne sa xol la yow yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal mm-hmm. ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yokko ko kattan ak te may nu ko nu ànd koog moom ba lépp lu mu yëkkati lu nekk bu gestooro gis nu nu ànd ko am ca ndam ndam ya di wéy ndam ya di wéy ila macha allah mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi noo ngi lay nuyu te di la siyaar te fas yéene jëfe ndigal loolu nga joxe ndax ay taalibe rek lañu sa ndigal rek lañuy lañuy déglu lépp loo xam ne bu sëñ bi dafa nekkoon digli ko nu di ko boo fi nekkee dañ koy def te boo ko matul woon doo fi toog kon nag noo ngi waa dëkk bi ba tey la ma wax rek dikk na dénkee sunu garab yeeg nit ñi lañu dénk kon noo leen di dénk lii nga xam ne sëriñ ba siru da koo wax ci kanam sëriñ bi ma bëgg yéen waa dëkk bi kenn ku ne jëmbal ci sa fulla jëmbal ci sa fayda bañ a déglu ma sàmb bañ a déglu ma demb li ma leen di wax itam mooy nañ ko defee woon daaw na ngeen buub seen kër yi ba mu set wecc toppatoo kër yi ba mu set toppatoo mbedd yi ba mu set toog fa nag ah boroom kër bu mën a jàng alxuraan ngay jàng alxuraan bu mën a jàng xasida nga di ko def koo mënul ngay jàng ñeent fukki xuloo ak euh, yu sell yónnee ko borom daaru mooti ak njabootam gam fa nekkal loolu mooy jëkk leneen la ca dolliku nag ah, faw dana am ñu ñëw ci yéen waaye dajaloo bi dañ ko wattandiku ak xumbeen yi soxlawuñ ci aw xumbeen soxlawuñu dajaloo soxlawuñu dara buñ ko soxla woon dañuy def CLD def CDD def CRD mm-hmm. yebal ki nga xam ne mooy port parole bi mu dem ca gouvernement ba wax ak ñoom waaye loolu lépp dañ ko daan def waaye mbir mu ne nag mbir ma ko ëpp doole bu dikkee dañ koy teg fi suuf te it le sëñ Abdou Khoudous waxoon sëñ Abdou Lahat ba mu koy laajaat màggal gi da ko ne boo ne woon nañ ko bayit nu ba ko sëñ Basiru mi it ba sëñ ba mu demee bu ko sëñ bi noonu boo demee neel sëñ Basanta ñang na bàyyi màggal gi sëñ bi du ci waxaat lu dul bàyyi naa màggal gi kon nag yàlla baaxee nu ba nee na nañ ko def nañ ko defee woon daaw noona nag rek lañ leen di sant yéen waa dëkk bi na ngeen xam ne daal lii la sëriñ bi wax lii mooy bëgg-bëggam ma nga jóge yit ci sëriñ Touba. Mm-hmm. waaw ku ci nekk ci la sëñ Bas nekk ku ci nekkut ci la sëñ Bas nekk moom. Mm-hmm. waaw kon nag na góor góorgóorlu ci kër yi góor góorgóorlu ci penc mi setal ko yéen commerçant yi li nga xam ne dañ koy jaay te mu primé na ngeen ko génne ci biti yi. Mm-hmm. ba mu jeex takk kenn bañ koo jaay ci dëkk bi. waaw leneen la ca dolliku nag danu nu def raafal nag noonu waa dëkk bi. danoon def raafal maag commandant brigade bi ak sous bi ndax bari na fi fi dugg lool te awutu yoon waaw danoon sant brigade bi it wun dara waaye nag faw am na ñoo xam ne dañoo dëgër bopp ak ñoo xam ne ñi duñu dégg ndigal ñu ci dëkk bi sax feneen la ñuy jóge waaye fas na li yéene ñu contrôler leen ba xam li ñuy dugaale ci dëkk bi lu mu doon moo xam jakarta la moo xam oto la moo xam kuy dox ak ma loolu daal lan bëgg ñu def ko te eh, fonk nag bis bi ci njàngam alxuraan mi fonk bis bi ci nii ko sëñ bi bëggee defar benn day kenn ku ne defar ko ci sa biir kër yemale ko ci sa biir kër yàgg sa waa kër waaw amul dajaloo amul dem ci penc mi amul baas amul dara waaw sëñ beenu dàq baas fop bu laajoon fukki tribune ñu di tribune yi waaw waaye ndigal loolee ko sëñ mun taxaa jox nag mu wéyal ndigal loolu mu joxaanu ndigal yi nun noonee mu wéyal ndigal sëñ Muntaxa ne lu nu war a wéyee ndigalam kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mm. sëriñ bi nga dogu ci mbas mi jeex takk boo dogoo ci barkeb Cerno mbas mi dara jeex mm. dañ lay ñaan nga dogu ci ñaanal mbas mi jeex takk mm. nit ñi am jàmm am xéewal mm. ba liggéeyal la liñ la war a liggéeyal di ñaanit yàlla dimbale la ba li nga bëgg a liggéeyal sëñ Ibra Faati lépp ci sa ay gi nga liggéeyu ba mat sëkk loolu la ñaan ci yow am ci yow itam nag yaakaar mm-hmm. yaakaar yu wér dañ ko am ci yow yoo xam ne ji bari nañu am ci yow yaakaar te du bisub tey bii bi nga doonee xalifa lañ ko am ci yow man xam naa ci lu wéra a wér ndax sama bopp laay wax waaw sëñu maa wax kenn waaye nag suñu maa wax sama bopp loolu moom xam nañ ko ci yow kon nag dañuy ñaan nga dogu ci daal euh, mbas mi jeex takk ci Daaru Muhti jeex tàkk ci Sénégal nawet bii nu jëmin nga ñaan mu barkeel te lépp doy te fekk ko te tal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima jullit ñi yéen taalibe borom daarul muxti ak li ci aju lépp ñooñu la ñuy képp koo xam ne kii taalibe borom daaru nga te gëm ko te jàpp ne moom moo lay dimbali ëllëg ñooñu la ñuy digal ñooñu daal sañ a digal ndax sëñ Abdou Khoudoss daana ko wax fii sëñ doomi borom daaru yi lay digal ak i sëtam ak ak i dongoom ak ñi ci des na ku bëgg boo déggee nga fab loolu la loolu rek moo tax xam ne loolu léegi eh, ndigal dikk na jóge ci sëñ Muntaxa moo ñëw fii woote ne neel sëñ na yebal si Basiiru mu ñëw mm-hmm. mu yebal ma yebal ko mm-hmm. ba mu demee mu ni ma dama bëgg ñu woyofal màggal gi mm-hmm. woyofal gi nag mooy jàng xasida jàng alxuraan tudd yàlla loolu mooy ndigal li képp ku ngeen gis seen njaboot ak ku ñëw ngeen teral ko mm, jox ko ñam ni ko sëñ bi digle woon loolu moom la ñuy def lii sëñ bi ko digle muy màggal gi ñëpp waroon koo def waaye am na ngànt loo xam ne li tax na kenn mënatu ko def e, te xam ne lor mën na ci am nan ko bàyyi te man bàyyi naa ko ak képp koo xam ne kiy dégg nga ndigalal borom daaru ak képp ko déggal ku dégg ndigalal borom rek nag ci laa ko yomal ndax ñooñu laay sañ ñi ci des am na ñuy kilifa waaye man daal lépp loo xam ne lii borom daaru moom moo ko moomoon wala mu muy dib taalibeem wala muy doomam walla muy sëtam wala muy xaritam digal nañ ko mu def ndigal li Sëñ Muntaxa wax ku ñëw ngeen teral ko te yem ci li nga xam ne mooy jàng xasida jàng alxuraan te it nag ginaaw loolu it nga xam ne danaa ci wax sama wax tuuti mm-hmm. wax ji ma ci wax mooy mboolem ku digal ko koo xam ne kii ñëw nga fi man mm-hmm. ni ma la na ma defoon borom daal def naa la ko mm-hmm. digal naa la nga jaamu yàlla sax ci liimaan ak lislaam ak lihsaan lépp loo dégg ne Serigne Bassirou Anta Niang moo ko wax lu dul digle liimaan ak liimaan ak lihsaan ak taalibe gu rafet koo xam ne gi ki fi nekkal Serigne Touba fu mu ne aw leen fa fu joxoñ rek man ma man maa nga caaw man ak ku ma digal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi mi ngi noonu kon euh, kàddu yooyu mooy euh, ndigal li nga xam ne moo jógee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général di Mouride jaar ci Cheikh Mouhamadul Basir Mbacke Anta Niang xalifa borom Darul Moxti wàcc ci ki nga xam ni moo yor kàddoom muy Cheikh Mouhamadul Basir Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous ak Serigne Cheikh Assou Faye Mbacke mi nga xam ni mooy chef de bi. kon Magal Darul Moxti édition 2021 di 77e édition euh, la ko Serigne bi bëggee nii la ko santaane itam mooy nañu ko defee woon daaw rek nu fas yéene koo euh, defee noonu. muy digal loo xam ni bàyyikoo na ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni mooy xalif général de Mouride waaye di xalifab Serigne Bassirou borom mbég mi. mu jaar ci Cheikh Mamadou Bassir xalifa borom daaru muxti borom mbég mi mu jaar ci Cheikh Mamadou Bassir moom Serigne Abdoul Khoudous borom mbég mi yàlla doon mbégteem jullit ñëpp bi barakati Cheikh Ibrahima Faati borom daarul muxti wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.